waaw léegi yow ban mbër waaw waaw nañ ma jox yaaw sama premier combat. sa premier combat waaw waaw. waaw ah. sunu gaal 24 lay wax ci waa sunu gaal yàlla yàlla yàlla moo leen fay. Uh-huh. yéen daal yàlla leen di jàppale parce que li ngeen def ci askan bi dafa rafet. waaw yéen daal yàlla moo am seen fay incha allah te fay. Uh-huh. waaw man immortel combat rek laa bëgg. waaw non kuñ ma jox na. yamb. immortel man maa waaw. soxla nga Yékini bu la joxee nañ ma utal si gars yi rek ci mbëri ndaw yi rek. Ah. waaw ma nekk si. waaw ñoom yaaw jaal ñoom seen waaw. ok seen ah? waaw waaw bëgg ah. waaw bañu ma kenn. waaw. Youssou Ndour. Youssou Ndour. <laughs> waaw. waaw yu waaw. essence bi nii moom waaw maa ci biir. ay ñaata ñaata ngay fayeeku. essence bi nii ma xool essence bi su ma am 300000 rek laay fayeeku. 300 waaw 300 waaw 300 laay fayeeku. pour l'instant 300. pour l'instant waaw. waaw pour l'instant 300000. 300 francs waaw. kii sax nuñ koy waxatee promoteur Lacernas nuñ koy waxatee. Lacernas kii promoteur boobu nu mu tudd. boole leen ma moom. moo waaw waaw waaw li mu leen wax ñoom Ami Seck samay rakk ñi sës si man uh-huh. bokk ci man uh-huh. waaw dama naan leen rek ñu jàpp rek ndeysaan métti na trop waaw ñu ngi lu ne ñu ngi dégg lu ne. waaw waaw kenn jàppagul sama komba sama yaay rek si jàpp ah. barki Muhammad waaw. Ah? sama yaay ak sama ah. ah. loo koy jëndal. non sama yaay non lu ma kër laa ko non dama ko bëgg a tabaxal néegu yàlla néegu yàlla laa ko bëgg a. waaw non lii samay cumbukaay la mbër day am cumbukaay samay cumbukaay la waaw samay cumbukaay la. waaw samay gaalaaje ngi nii. barki Serigne Bamba Mbaage. Ah. waaw non mbër man non amaguma dara. mais fi mu ne yaa ngi rëpp rëpp fa demee noonu. ah non gisoo wat bi ni gisoo star immortel samay rak waaw eh, non dama koy defaral bagage mbot wala waaw xattar bi